li nga xam ni moo xew fële ci Niger suñ koy jàngat wala ñu koy jàngat rek ci benn anam dafa bari lu bari loo xam ne daf ci laxasu poñ bi jiitu bi mooy dañu fekk président boo xam ni fal nañ ko mu ngi ci mandaam ñu jële ko fa ci doole CEDEAO ni su fekkee bàyyi nañu Afrique ñeenti garde yi mu neex ngeen jël ak président tëj ko tëye ko ni jëlee pouvoir bi loolu kenn xamul fu mu jëm ay la yéen mën nañ leen ni tax defuñu ma loolu Mali def defuñu ko fële bi mu xewee ci Burkina waaye dafa mel ni bii ci Niger dafa am na spécificité bu njëkk bi mooy Niger mi door am alternance démocratique nga xam ni kii di président Bazoum wuutu fa président Issoufou xëy na am na ay débat ci wàllu digganteem ak opposition ba am na aussi fu am ci wàllu armée ba. ci yi nga xam ne jëm na ci wàllu xeet ak yu demee noonu ñaareel bi mooy jàngat bi bi mu xewee CEDEAO jël mesure boo xam ne daf ko annoncé dès di début mooy option militaire boole ko ak option diplomatique waaye li ci gën a euh, am solo mooy ki nga xam ne mooy président Tinubu bu Nigéria dogal boobu bokk na ci ñu gën a jël moom mi nga xam tamit ba mu demee ba ca Sénat bu Nigéria ñoom dañ ko dogal boobu du ci dal lu ñu mën a comprendre la ndax Sénat Nigéria soo xoolee sénateurs yi nga xam ñoo dëkkee dans le Borno State ci du nord du nga xam ñoo lëkkaloo ak parti bi nekk ci Niger ci wàllu Difa ak même côté Maradi ak côté boobu dañu am lu bëri luñ bokk ak peuple nigérien donc duñ d'accord ci lu mel noonu ci wàllu intervention militaire. moi aussi beneen euh, lu ci am mooy ca ëllëg ñi nga xam ne ñooy way fukk ñi jël mbir mépp laxas ko ci ginnaaw France. loolu nekk lu efficace ci wàllu communication population ànd ci ñoom yaakaar ni coup d'état bi nga xam ni am na dafa ñëw ngir gën a may waa Niger moom seen bopp xëy na sax ay léewen du loolu rek mais li ci gën a ñor way takk der yi mooy ak ñi xam ñoo jël nguur gi mooy garder le pouvoir te pour garder le pouvoir il faut nga def communication ñu feesal dell stade seen di gunje ñeenteelu anam bi mooy ñi nga xam mooy la communauté internationale ki ci jiitu mooy mooy euh, euh, partenaire bi nga xam ni moom lañ fa miinoon waaye moom ay problème waaye tamit Union européenne ñoom toujours seen politique boo gisee ci Sahel ak de l'Ouest dañuy gisul France mu mel ni tey France wala Union européenne dafa nekk ci wàllu Sahel bi ak saxaar boo xam am na wagon yu bëri waaye locomotive ba ko jiitee muy France moom moo am problème ba ko defee nag amatuñu rôle boo xam ne am na solo ci crise bi ñi nga xam ne ñoo ñëw vraiment mel ni ñoo ŋànk bi ak solution yi xam ne moo ko a lijjanti mooy les États-Unis ci tàmbali bi ñu allié wu ci ak CEDEAO li ñu wax ci wàllu intervention militaire ci buñ dem ba ci biir ñu yebal Victoria Nuland nga xam ni personnel di ko am solo la département d'État mu ñëw teg ñaar yi li ñu tuddee mixte diplomatie mooy teg wàllu intervention militaire wax ni option boobu option bu sérieuse la waaye tegit ni dialogue mën naa am ñu xool ni ñu ngi gën di avance ci crise bi ñi nga xam ne États-Unis dañuy gën di rocc seen bopp ci le camp même du temps nga xam ne ñooy waa Union européenne ak France parce que bëgguñu la fa am ci crise ak France lam fa am ci way way wow topp leen ñoom bëgg a dox seen yoonu bopp te ñoom it am nañ fa intérêt yoo xam ne yu am am solo la maanaam base base Agadez bu ñu fàtte ni euh, États-Unis daan négocier ak CEDEAO pour def fii Afrique comme seen base yooyu Niger moo ko nangul ma nga ca dëkk bu ñu naan Agadez moom euh, benn statut bu bu Niger am ci euh, stratégie mondiale de contre-terrorisme statut boobu nag moo tax fu mu ne États-Unis ñu ngi def nii ak nii bëgguñu trop jiital option militaire ba ñàkk euh, seen diggante ak way fipp yi ak wala nga xam ne ñooy soldats yi fa nekk waaye bëgguñoo aussi tamit wan seen partenaire CEDEAO yi ak Union africaine ni ànd ci loolu mbir mi nag biñ demee ba Union africaine moom mu ñu am consensus ci li war a def euh, dafay indiwaat beneen jaaxle. léegi nag euh, yaakaar naa ba sax communiqué bi nga xam ne waroon génn ci seen daje bi nga amoon ba léegi génnagul kon consensus amul donc mu nekk situation bu boo xam ni ku ci nekk da ngay jéem a sauver la face commune bi waaye takk der nga xam ñooy jël nguur ga yaakaar nañ ñoom dañu war a des ci nguur gi ak nu ñu mën a dese ci nguur gi CEDEAO muy def ay sanctions yaakaar dañ leen fa war a jëlee parce que gàddoom jiit na ko pare Union africaine nekk ca ginnaaw moom it nekk organisation moo xam ni su lii wéyee te taxaw ci taxawaay bi mu war a taxawaay moom CEDEAO ñoo bokk am demin ci ñàkk kóolute population bi ñoom mu des nag lu ñu ci l'opinion publique Eisenhower danañ wax lan guerre opinion publique moo koy gañe boo xoolee opinion publique yi euh, Afrique euh, euh, en Afrique opinion publique nga xam moo nekk Afrique de l'Ouest daanaka mel ni na àndu ci guerre bi loolu nag nekk loo xam ni suñu njiit yi dañ ko war a analyser bu baax a baax xam guerre boobu bu amee nu muy ñëwee ak division yi xam lan la indi ci wàllu waa CEDEAO nga xam ne ku mel ni Togo àndu ci tey euh, ñu mel ni am na yenn réew yoo xam ne waxuma sax Mali ak Burkina nga xam ne ay way fipp lañ nga xam ñoom ak Guinée ñoom dañuy bulee réussir na ci ñaamee ñu jël fa stakkale rek xëy na ñoo ci des CEDEAO ni bu fekkee lii wéy na nga xam ne fu mu neex ab takk der mu jël nguur comme bépp régime bu nekk Afrique sowu-jant won tondaw yaa ngi sursi lii mooy situation bu complexe bi nekk yaakaar na nag mu jar jiital xel jiital dialogue bien que l'option militaire ñu ngi ci kaw table bi ñu xool nu ñu koy def rek nga xam ne yaakaar naa Afrique yàgg nañu am ay solution ci waxtaan yàgg nañu am solution ci ay concertation te am nañ encore ay mécanismes endogènes yoo xam ne des nañ ñoo xam ne nañ ko mobiliser.